Pikine au complexe xéewal gi am ay délégué yu jóge woon ci département yépp teew fa bañ fa tegee at ñu defaat beneen réunion fii ci Mbacké ci dalalu président Babacar Samba Fall nga xam ne moo jiite naari Mbacké yépp délégation yu jógewaat ci Sénégal yépp teew fii ci Mbacké bi ko président de la République jógee booba monsieur le premier ministre Mohamed Dionne moo fi nekk mu bég ci nekk ko oh, yónneel même une délégation officielle parce que je suis très attaché à la communauté Maure Dame Diop le ministre de la formation professionnelle moo ñëwoon ànd ak le gouverneur de la région de Diourbel et le préfet de Mbacké ñu teew fii indi jàppale président de la République gannaaw gi Covid bi doxaat fii ah ba léegi nag ba mois bii passé ñu daje fële ca Ross Béthio macha allah suñu responsable naar yi nekk Ross Béthio dalal ñu. daanaka sur les quarante cinq départements du Sénégal li ëpp teewoon nañu fa ñu waxtaan ñu ne ñu def benn comité de pilotage naam defaguñu bureau waaye nañ def benn comité de pilotage nga xam ne au moins danañ mën a liggéey bu ñu fa jógee nag comité de pilotage boobu mooy def tournée nationale ngeen jégal ma ci guddi bi rek parce que dafay baaxee ñu leeral ko dañoo soxla shérif yi nekk fii gën ñu jàppale ci liggéey boobu comité de pilotage ba ñu dajee keroog risatol ñu waxtaan ñu proposé ma comme coordonnateur muy yenn bu kon ñu ma ñëwee fii Mbacké ah war naa leen wax jàppaleeg waa Mbacké Babacar Samba Fall ak naari Mbacké yëpp boobu ba léegi ak Saliou Dieng mii ñu ngi ciy taxaw di ñu jàppale. comité de pilotage boobu installé nañ ko installé un bureau mat vingt cinq membre yoo xam ne am na commission yëpp bëgg nañu incha allah ci mois de février bi début mars ñu tàmbali tournée nationale ci quarante cinq départements yu Sénégal yi. bëgg nañu ci biir mois bi comité de pilotage boobu mission bi ñu ko jox mooy aller au congrès parce que ñun dañoo nekkoon ndaw daan déglu ci rajo Sénégal les morts à l'écoute de rajo Sénégal ay doyen ba yaafaal ak makkan yëkkati woon askanu naar dox ci ba mu àgg fu am solo ci Sénégal gannaaw gi yal na yàlla yokk leeram Chérif Abdourahmane Tilala ñëw jël flambeau bi def ci liggéey bu am solo waaye tey nag ñun it dafa jot ñu gën a réorganiser waat gën a takku jéem a teg suñu tànk foofu nga xam ne fi la mag ñi nekkoon loolu nag dañ ci am obligation parce que bu fekkee ne tey Sénégal xeet yi jaxasoo nañ ba am ci ñun ñoo xam ne sax duñu làkk-làkk wi waaye nag c'est le sant mort qui coule dans nos veines deretu naar yooyu nekk ci suñu deret suñu yaram dañ ci bëgg lool kontaan ci te dañ ci war a liggéey te ñëpp xam nañ ne diggante Sénégal ak Mauritanie naar yi war nañ ci mën a jàppale naam relation yi rafet na waaye nag dañ cee war a gën a doxaat te tamit état du Sénégal pour développer le pays dafa teg ay instruments di dimbale euh, communauté yépp te jàpp nañ ne il est temps que l' état du Sénégal accompagne davantage la communauté moo pour que ñu mën a jouer suñu rôle pleinement dans le développement de ce pays loolu nag la ñuy liggéey di ci ñaan chérif yépp ngeen taxaw ñu ci jàppale ñu ci kilifay réew mi jot nañu ko. ah ñu ngi waaj également tournée boobu moo tax su ma ñëwee fii nag dinaa leen leeral loolu ci lu mu gàtt naam di santaat Chérif bu baax waaye di sant tamit Chérif Adramé gis naa engagement am depuis lu ñetti weer a ngi nii mi ngi liggéey ci mbir mi te bëggu ci sax feeñ gis nga bi ñu ñëwee daanaka mbooloo mi ñu bari gisuñu ko loolu mooy fonk waajur liggéeyal sa waajur Chérif je te félicite pour ton engagement yow tamit Adramé nga continuer liggéey boobu ñun nag ñi ngi sant di gërëm bu baax tey yàlla def na naam ci askanu naar lañu bokk di ci yëngu waaye fii ci Mbàkke tamit liggéey nañu fi ba askanu Mbàkke élection yi passé wóolu ñu dénkuñu dëkk bi ci jàpp naa ne tamit cër la beneen boo xam ne bokk na ñu koy bokk ni ko liggéeyal Mbàkke également ànd ci ak suñu frère Galoba liggéey boobu nag bëgg nañ ngeen jàppale ñu ci yéen shérif yi semaine bii di ñëw bëgg nañu def tournée pour dem l'ensemble des familles religieuses euh, shérif ñu seeti leer ci Sénégal ñun bureau bi waxtaan ak ñoom wax li fi ñu toll déglu seeni orientation fu ngeen ñu wax ñu jaar fa foofu la ñuy jaar loolu la ñu wax ñun nag ñëwuñu ci communauté bi pour une position wala leneen waaye dañ ci bëgg a liggéey pour que ëllëg si biir la communauté Maure mën a l'état du Sénégal mën a am un interlocuteur pour jàppale la communauté Maure parce que gis nañu tey ci télévision nationale at ci yeneen émission yi ak instrument économique yi état jël te jàpp nañ ne suñu naar yi jigéen ñi surtout ñuy am liggéey bu am solo la ñuy def ñooñu nag dafa jot l' état du Sénégal accompagner leen davantage pour que ngeen gën a mën a jouer seen rôle loolu rek mooy liggéey bi di leen sant di leen gërëm di sant di gërëm également Saliou ak Assane la jeune communauté Mor yéen ñi jàppale Chérif ci liggéey bi parce que fii tey ku fi ñëw gis organisation bi macha allah ñëpp discipline toog ci place. nga xam ne la communauté Mor est une communauté exemplaire et qui mérite d'être accompagnée jërëjëf di leen sant di leen gërëm maa ngi jégalu ci kàddu yi ñu guddal waaye lépp lu ñu wax rek yéene la ak suñu askan yéene la également Chérif bég nañu lool parce que fii ci Mbàkke Xewar man fi laa tuute tànk fii laa jàngee école suma kër nijaay Ahmed Fall doonoon tuut tànk daan jaar fii di gis gàmmo gi ñu koy organiser ñu nekk xale bu ndaw ba tey yàlla def ñu ñu ñëw fekkee ko toog ci bokk ci autorité yi lu am solo la et c'est une fierté pour nous et pour Mbacké ñëpp xam nañ ne tey manifestation bi bokk na ci agenda culturel u Mbacké ak religieux loolu lu ci am solo la incha allah Chérif on vous encourage on te félicite encore pour le travail jërë ngeen jëf